Já vou, né? asalaamaaleykum mbokk internet yu câble TV nuyuwaat nañ leen comme ni ñuy nuyoo buur nan leen dal leen ak euh, jàmm ci seen biir émission survol de l'actualité di leen wax ni euh, namoon nañ leen te di leen euh, di profito ci occasion bi di leen déwénati ci tabaski bi nga xamante ne jàll na ci jàmm di ñaan yàlla mu may ñu ñu koy fekkee ay at yu baree bare te ñi nga xamante ne amuñu woon occasion def ko ak seen famille ndax caabi daf leen la féete ginnaaw yàlla leen yàlla génnee ci ay tolof tolof ñi doon aussi ci ci lalu hôpital yi aussi yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a seen famille naka noonu ñi nga xamante ne fekke wuñ ko te yàlla jël na leen yàlla na leen yàlla yërëm te xaree leen àjjana te yéexee ñu fi alors amaat mbégte bu baax a baax yéen internet yi di leen euh, jëfal di waat ak euh, yéen te di dalal ñi nga xamante ne ñoom laa féggool ci euh, plateau bi ñu fas yéene waxtaanee lépp loo xamante ne mooy bàyyeekoo ci actualité doon si suñu biir réew naka noonu wala bitim réew te mu doon lu ñuy soxal nga remercie ne borom Clair Vision nan ko dalal la. à merci. Euh. remercier ci dalal bi Para euh, euh, ak suñu mhm. nañu ben émission di mhm. di wali ci turum suñu gambien nga ñu suivre. Mhm. Para balnal ñiy suivre Kéwoulo TV yëpp aussi maa ngi leen di baalu ax euh, di leen baal ax tamit parce que def naa julli bi ba léegi mm. ñu ngi doog am jotaayu waxtaan. merci merci beaucoup ñu lay baaluwaat ak aussi di la. Mm. jaajëfal ci sa taxawaay ci biir mm. kër gi. Mm-hmm. keneen ki may teg ci nuyoo bi naan ko namoon naa ko torop nag. Guèye <laughs> Guèye namoon naa la. dafa mel ne dañoo tukki woon bay doog a ñëw. mais lii mooy charme Kéwoulo. Mm-hmm. famille lañu. alors maa ngi lay gërëm di la sant ci dalalaat bi. Mhm. alors di baalu ak auditeur ak auditrices yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak ñi nekk ci diaspora bi. Mhm. te naan leen wax dëgg yàlla Kéwoulo moom noonu la fa amaana nag xëy na ci suñuy propos. Mhm. xëy na ñu am loo xamante ne wax nañ ko mu heurté ndax wax yombul. yàlla la ko ko mën wax mu àgg. te liñ fiy wax it c'est pas parce que dañu amoon monopole savoir yéen ñi toog duñu déglu am na ñu ngi fi kàddu yu ñu fi yëg yéen ñu ko gën a xam tok di waxta amana lañuy wax yéen ñu ko gëna maîtriser. Mhm. kon su fekkee dañ ci def ay rëq-rëq wala jub nañu xamné nit mo matul ñong leen di baalu àqwaat. Mhm. naan leen na ngeen ñu bal ak bu baaxa baax jublu wuñ ci lolu défar rek lañ ci jublu may nuyu nak sama grand frère de cœur <laughs> clair Vision. <laughs> vraiment borom vision bu mag bi. merci Claire mi nga xamné askan wi la fi nekkal. bu dégg yalla na yalla yagal sa taxaway amin amin yagal say cër. amiin amiin nga yàgg fi taxawal réew mi. parce moom la ñun ñu ko xam. Mm. duñ ko wooyee keneen mais le serviteur lañ koy wooyee. Mm. serviteur dévoué d'un peuple. Mm. moom mooy bàqal suñu ndox mi soo paree. waaw kii nag. moom mooy waaw au diwaan. waa diwaan nag ñoo jaar fii. Mm-hmm. encore Kéwoulo. Mm-hmm. dee leen naan au diwaan. Mm-hmm. tabaski bi gis ngeen ñu bëri xar mi sonal leen. ndax dañoo jënd seen au diwaan rek. dégg nga maam ba ñu lakkee wàjji mhm. jël au diwaan naan ndax moom dafa am ay ferñeent ci nekk yoo xamante ne boo lekkee ba suur naan sa benn au diwaan digestion bi day gaaw ndox ndox mi dafa oyof fi mu ne ni bu la neexoon mën nga ci naan léegi quatre litres doo ko yëg te doo ko sew te loo naa mu dugg sa yaram ndax am na potassium am na magnésium am na calcium te yooyu yëpp médecins yi dañ la koy bindal te kii boo koy naan maanaam ferñeent yooyu day fa baax jo kon dee leen naan au mu nga xam ne moo sponsorisé suñu émission yi fi nekk fi yëpp ci Kéwoulo kon waa Oddiwane jërë ngeen jëf yéen it yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay suñu ay euh, émission naan leen daw leen jënd ko euh, sell na oyof na macha allah te neex naa naan te am na lépp comme ni ko géey di euh, waxee ratewu ko benn yoon na ah, ni mu ko waxee nag noonu la amee alors keneen ki ñuy dalal ci biir plateau bi mooy suñu invité di jour comme ni ngeen ko xamee xam ngeen ni prix yi dogal bi wàcc na tey la ñu war a def li nga xam ne mooy wàññi yenn ci njëg yi bokk na ci diwlin naka noonu ceeb bi naka noonu suukar ak sima ginnaaw lool aussi mi polémique bu euh, baree bari waral tay nak ñu dalal Alassane Ba mom commerçant la ñu koy nuyu bu baax ba Alassane. waaw Thioro maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu trop invitation bi. Mm. di nuyu Grand Télévision

bi ñenn ci pénitencier yi amaloon na foofu ba fekk fa ay euh, mbir yoo xamante ne daanaka waru woon demee noonu daañu ci waxtaan ginnaaw loolu aussi dinañu waxtaanee li nga xamante ne moo di rencontre président de la république bu Sénégal moom Bassirou Diomaye Diakhar fay ba mu demee fële ca France rencontre ki nga xam ne moo di Emmanuel euh, Macron ginnaaw mbootaay boobu nga xamante ne moo di Gavi defoon na benn événement ngir dëggal wala bokk jëmmal li nga xam ne moo di mbiru vaccin jëm ci euh, Afrique loolu aussi dinañ ci waxtaan ci jëm ci keneen ki nga xam ne moom envoyé spécial Macron lay doon di woyo ci turu Jean Marie Bockel mom nak mo wara ñew ngir amal waxtaan fi ci Sénégal jëm ci base militaire française yi nga xamantene amna ay dogal yuñ ci wax dinañ ko faram-fàccee ci bir survol de l'actualité ak sama ay euh, invité alors fi may jiitalee euh, waxtaan bi rek damay euh, laajte première question bi suñu invité moom Alassane Euh, ginnaaw ba ñu wàññee euh, prix bi naka ngeen euh, jëlee li nga xam ne moo di décision bi tukkee ci état est-ce que wàññi bi dëggal ngeen ko yéen waaw walla déet. ok merci jërëjëf wàññi bi moom ñun yëpp ñun yëpp loolu lañ bëgg parce que yaakaar naa ku xëy ku xëy ubbi sa boutique walla ubbi sa magasin client moo tax. te client ñoo xamante ne chaque du ñoom ñoo la jëndal yaakaar naa amoo benn intérêt di la njaalu seer di wax rek wàññi bi gis nañ ko mais pour ñun am na lu des parce que tey tey boo gisee surtout ma ñoo gën a sonn tey boo nee kilo no parfumé bi cent dix problème bi foofu la te boo ko jaayee 400 da ngay perte boo ko yokkee 425 bu ñu la si jàppee mu ne la fayloo xaalis bu bëri loolu moo tax commerçant yu bëri ànduñ si mais nag mënuñ si dara il faut ñu jéem ko parce que nguur moom lu mu teg moom yaakaar naa nangu ko rek mais war nañ ko gën a defar même bu dee 400 francs wala 425. ñu ñu def ko mais affaire bi daal yombul te commerçant yi ndaw ndaw ya moo gën a sonn parce que boo xoolee grossistes yi wala magasin yi bari ñun la ñuy jaayee dañ lay jaay loo xamante ne yow état bi lu mu lu mu wax boo ko jaayee du si génn parce que commerçant boo gis day fay location day fay lépp xam nga day fay courant lépp lu war si lii daf koy fay yaakaar naa tamit nit koo gis muy liggéey pour mu am la te gis naa ni gars yi bari jamono bi commerçant dem nañ ba gars yi bari commencé si décourager parce que comme mburu bi nii euh, am na am nañu bari bàyyi nañ jaay mburu parce que boo xoolee mburu bi lu bari gars yi boo xoolee bor la koñ bi dañuy ñëw leb la mburu bi voilà bu ñu la ko lebee yeneen saa sax gars yi pour ñu fay la problème la te bu ñu leen tamit tegal la si pression tamit da nga koy bàyyi te mburu bi bitig koñ bu ñu bàyyi jaay mburu rek da ngay gis ñu bari duñ mën a ndekki état bi nañ sooraale ñooñu quoi. mais c'est vrai que wàññi nañ mais avant ñoo wàññi defoon nañ benn waajal waajaloon nañ est-ce que yéen ñi nga xamante ne ñoo ëmb seen ay kuréel joxoon nga leen seen baxa bataaxal ba nga xamante ne dañ leen ko jébbal ci ministre du commerce ngir mu mën a saytu seen ay bëgg-bëgg laata ñoo wàññi. waaw wàññi bi am na ñoo xamante ne bokk naa si ñoom waa ñu jiite bi mais gis naa gis naa ku jiite lii bi lu mu wax dafa dafa mel ni ñoom gars yi ànduñu si wax parce que am nga nit moom boo bokkee si dara nga génn nga ne rafet àndoo si yaakaar naa ñoom li ñu bëggoon amuñu ko te commerce dafa nekk loo xamante ne pour man jaru sax publicité bu wàññoo dañuy wàññi daaw heure bi yaakaar naa kilo soble jar la 1200 mais ren kilo soble 300 parce que wàcc na lu wàcc rek nit ku lay jëndal chaque jour sa ay client yaakaar naa kenn amul di leen jaalu seet su ma gisee gars yi nañ boole yaakaar naa client yi bari ñu ngi ñoo lay wax ne sax yéen moom xoolal jaay leen Ni du jaari perte. yaakaar bi lu solution nañ commerçant sénégalais ku sa mais boole moom yaakaar naa loolu dañuy d'accord alors euh, Clédor est-ce que gis nga ni wàññi bi fi ñu ko féetale lañ ko waroon a féetale parce que defoon nañ benn promesse électorale boo xamante ne peut-être moo leen tënk pour ñu wàññi est-ce que waruñu ko woon commencer ci mbirum gasoil beeg yooyu laata ñoo laal euh, dund bi parce que ñoom ñu ngi def polimique naan ànduñu ci parce que dafa métti ci ñoom et tout ça te lii yëpp waajaloon nañ ko avant ñoo teg acte yi. waaw xam nga problème mu boulanger yi ak meunier yi euh, dafa yàgg Sénégal euh, kooku beneen problème la. bu jotewul ak euh, yokk ak wàññi dara parce que meunier yi dañu def benn lubi boo xam ne xajaluñu kenn seen biir man xam naa benn entrepreneur sénégalais boo xam ne dafa investir ci minoterie maanaam usines yi defar farine mais ay grand moulin yi dañ koy dañ lay kepp dañuy wàccee seen prix ba nga xam ni moom day produire à perte pour étouffer ko ba noppi proposer ko moom lu muy produire mu jox quoi ko ci le prix bu ñu du ñu mon moom mu bañ ñu prix prix bi di comme quand comme que ñoom nous nañu c'est un prix yu farine pour faire ku bëgg a dugg seen biir pour produire farine comme ñoom mais ban problème la ñu am bu ñu waree wàññi farine bi loolu de am na fi ay dossiers ñu mën indi nag suba la teg ko ci table bi invité ay nit meññee ay FKS ay grand moulin de Dakar ak ñeneen ñu ñu xamul sédiment am na fi eh, minoterie Babacar Ngom mais Grands Moulins da ko xeex wàññi ay njëgam pour étouffer ko te muy sénégalais te grand moulin di Mimran ak franc-maçon yi kon bu ñu sonal ñom buñu bëggé Daniel, sen concurrent ñom dañuy wañi sen prix kon kay bu gouvernement bi bëggé soulager population war nañu mëna wañi sen prix. kon problème warul loolu jotewul dara ak boulanger parce que boulanger yi bu ñu farine bu cher pour ñu da fay metti mais ñi défar farine bi fofu la problème bi nek tay ji ñom ñoo nek en grève. mais ñoñu ñoñu dañuy fonto mhm. ñoñu ñoñu nañu xol sen évolution des prix buñu amé amee gan ci secteur bi dañuy waccé ba bu ba nga xam ni yow boo boo tegee sa structure tu travailles à perte. imposez la nga jaay y a une mafia Sénégal dafa am ay monopole yoo xam ni dañu briser les monopoles monopole moo baaxul ci dëkk c'est comme le sucre avec Mimran la farine c'est encore lui Mimran. Ah c'est mono mais c'est xamoon ni Grand Moulin c'est Mimran. Mimran la moom Grand Moulin. Grand Moulin de Dakar c'est est le sucre c' est Mimran hein. non mais euh, mais laata woon ñuy laaj ay prix Clédor est ce que mënuñu woon briser genre lobbying yooyu wala boog mu am ay relève euh, yoo xamante ne ñee suñu bañee ñee suñu bañee ñee daal di nangu. gis nga gis nga il faut briser tous les monopoles et laisser la libre concurrence s'exercer. Lolo loolu moo indi soulagement ci consommateur mhm. parce que vous dee orange kese moo fi nekk di ñu jaay connexion lu mu ko neexee parce que raison baax su amul un concurrent boo xam ni tirer les prix vers le bas mais daf ñuy il faut briser tous les monopoles. Mm-hmm. comme ça euh, libre concurrence dal di di jouer kooku ci meunier yi la donc baisse des prix du pain ca fa ñuy defaree farine yi rek la a mm-hmm. donc boulanger yi ils sont impactés c'est vrai mais pour nous ci sa question ci baisse des prix je crois que man waxoon naa fi lii baisse conjoncturel la bés bo xamni pour faj ben jump jump la wala pour soulager ay population lolu lu ñu saluer la parce que dégg naa sama frère Thierno bokkum ni même bu doon deureum la ñu wàññi sax baxna ci population yi mo gën ñu yok deureum ci door a tok voilà voilà té ñi ils ont quand même trois mois. trois mois te te trois mois yu matugul des na tuuti. te fay nañu boru baykat yi. ñu ngi fay ay milliards. fay nañu boru étudiants yi seen bourse ay milliards subventionné nañu 52 euh, milliards pour dund bi daal di wàññi. te desitu budget mbay mi aussi la même chose. mbay mi waaw ñoom la wax. euh, ah. euh bo nopi waccé nañu prix engrais yi. Mhm. xam nga. Euh, def nañu effort pour ñëpp jot sen jiw impliqué armée ci 3 mois <laughs> nga def lolu loolu euh bo nopi opérer une baisse des prix ak lu mu am am am polémique lu ñu wara saluer la mhm. légui nak euh boulanger yi ñom nous euh, defar farine problèmes. nous avons problème problèmes. Nous ñoy problème bi ñoñu la état bi wara a gérer euh, xol ñom ndax sax ñu nous ñu ngi seen ay charge fiscale ak tout ça euh, parce que nous bu nous gan comme nous ma wax ni dañuy waccé bu mu Nous ba mu anormal sax pour étouffer industrie uniquement alors lobby la donc loolu kay suñu leen demandé ñu wàccee war nañu mën a wàccee donc euh, bes réel muy am ci li nga wax léegi bu hydrocarbures yi wàccee maanaam essence gasoil te loolu ñu ngi ci jëm non seulement day doon bés mais day doon benn gain parce que tey jii bu ñu commencé jëfandikoo suñu pétrole ak suñu gaz six cent milliards yi ñu doon subventionné euh, carburant yi day dañ day dolleeku ci gafa état ba noppi li ñuy produire di ko transformer ci ay hydrocarbures carburant yooyu dina wàccee courant bi dina wàccee même mburu bi mhm. mais est-ce que xam nga boulanger dañuy utiliser carburant bu bari bu bëri sax ils utilisent beaucoup de gasoil. Mhm. gasoil bi bu aussi benen facteur bu mën a coût pain bi mu ngi non ak paas électricité bi. bu wàccee. mais mais on nit ñi dal nañu muñ te xamné ñu ngi jëm ci ay allègement ci wàllu diisaayu dund gi bah ñu ngi jëm ci ay allègements ci panier de la ménagère parce que yooyu yëpp je crois que lu nekk à la portée de ce de ce régime là la mm-hmm. te buñ ci àggee je crois que euh, ñëpp dinañu souffler lii nag c'est conjoncturel euh, pour tëj yenn gémmiñ rek nga xam ne avant le 15 sax ñu naan mais ñi ñoo fi waxoon le 15 dañuy wàññi comme si mm-hmm. dañu jonkandi xaar gouvernement bi def échec wala erreur wala dara yooyu tout ça wala mu wax loo xam ni defu ko mm-hmm. ñoom tamit seen ngor may leen ñu ñu ñafe ba sàmmonteeg li ñu diggee woon ak askan bi léegi nag ces problèmes là il faut les il faut les gérer entre les boulangers et les et les et xam ne ñooy defar farine. foofu nag laa la mm. bëggoon euh, laajaate laa dama jox Guèye parce que tout à l'heure dama dégg nga tudd lobbying est ce que lobbying yooyu tey ñi nga xam ne ñoo nekk mën naa ne ñoo nekk en bu ñu amoon ay concurrents yu dëgër tey dinañu mën a jooy jëm mbirum euh, mburu donte que wax nañu li ñu war a wàññi joxe nañu ay subvention bu tolloog ci 53 milliards et poussière. Mm-hmm. mais ba tey euh, gis nga ni mu ñëw dañoo def seen grève ne lànk duñu defar farine te bu ñu defarul farine xam naa ni mburu moom du yomb pour mu am. waaw xam nga ñoom am nañu ay milliards yu leen may euh, ñu ñu sonal les consommateurs parce que timoniers ñu bëri ay ay ay étrangers lañu kon bu vous ni ci ce yor dañu bëgg besoin de mu nekk denrée stratégique stratégique la dans denrée stratégique la farine ci lépp donc parce que nous, euh, euh, nous du de la farine cassée. Nous avons aussi des pâtes euh, les les les les spaghettis les macaronis les lasagnes tout ça donc nous, avons de loolu yëpp day dugg ci alimentaire kon ñoom bu ñu bu ñu bu ñu grève grève bi xam nga du mën a ci ouvrier yi mhm. parce que ouvrier yi dañ leen di fay ñu fay liggéey du ñooñu ñoo ñoo ñooy grève grève yooyu c'est inspiré par le patronat c'est différent parce que man tey jii su may liggéey ci usine farine ba man lan moo ci sama yoon farine yokk farine wàcc man sama salaire laa fa am lan laay grève c'est le patronat qui crée un blocage kooku nag entre ñoom ak état bi la état bi man def naa am nañu fulla de mën nañ ko régler. d'accord dañ koy régler donc ces monopoles là ils vont être brisés ils vont être brisés ñu ubbi affaire ku mën indi minoterie mu indi minoterie ku mën importer blé mu importer blé. d'accord légui état bi ci homologation prix yoy lay jëm. Hmm. xam nga ciment doo ko jaayee prix bu mu la neexee. dangoté du ni man lii laay jaayee Sococim ni man lay laay jaayee.

am na ci dëkk yoo xam ne tey wax dëgg yàlla boo leen wax waxi mburu sax surtout lu jëm côté Sénégal oriental jëm Tamba ñooñu mu ni clément bi la ñu gën a fonk ndax man mi nekkoon naa Tamba foofu mburu moom du seen problème. donc mburu tubaab yi ñoo ñu ko force si politique bi stratégie politique bu ñu def pour noot askan. créer mburu ci la bokk ceeb ci la bokk mais ñaari ma ñaari denrées yi yëpp avant la seconde guerre mondiale ñun Sénégal daawuñu ko utiliser. wala lu tuuti ñoo ko fi daan utiliser. Mhm. dem nañu benn jamono ba lu mel ni am temps Abdou Diouf. dafa créer li ñuy wax mburu dugub consommé local boobu ba mu dem mais sénégalais yi dafa mel ni dañ leen liggéey ci mburu farine bi mais nag alhamdulilah. mais moo gën a neex lekk nag gay il faut le mburu farine bi dañ koo tàmm rek moo tax moo gën a neex waaye benn dugub li mu am ci ay ferñeent mburu fa euh, blé bi amu ko. mais gis nañ ni sénégalais yi dañ koy euh, ndékkee au delà de ndékki bi dañ koy reeree aussi. noo mburu dafa complexe. Mm-hmm. ndax mburu euh, foo ko mën a booleel. mu ànd ak moom dafa bëri. soos bi ndax mburu ma nga ca soos. Mhm. ginaar moo ca mën moo mën ca café ak meew boo amee sa euh, euh, euh, soosu ginaar jën ma nga ca mburu day dem ci suppu kanja sax mburu da cee. pain bi pain perdu bi. Mhm. donc mburu dafa dafa lawet lewet dafa yëwén dafa laabir kon ñi ngi ñaan gouvernement bi wax dëgg yàlla nañu gën a wàññi te mu ñëwee yooyu nañ def pression seen kow ay sénégalais lañ comme ñëpp. parce que Clédor nee ay lobbying la en fait ay lobbying la parce que tey jii kii di Mimran dafa mel da daa Sénégal. Wa yow dafa nek ci lu ko neex. su te loolu moo dul deug mo dul yoon. yow yow nga ne yow ya yow compagnie sucre ya yor sucre yor mburu di ben nit di ben famille. téye xoolu état ben concurrence loyale amoko ci biir rew mm. te yow nga ñul war buñ la poser na lan nga investir ci état lan nga def état bi yow da nga doon tok am say lobby yo xamni yow ya nek ak ñom di créer un entreprise ku créer lu mel yow di doomu sénégalais sax nga wañi ba mu daanu loolu lu état mën a la may profito tamit naan ne sénégalais yi gën a ci mbayu bele bi parce que expérimenté nañ ko au nord du Sénégal et ça a marché. Mhm. te je pense que bokk na ci programme autosuffisance alimentaire bobu nga xamné buñu bu ñu commencé bay bele ba xamné parce que dañu defoon dox ci suuf Sénégal. Mhm. buñ koy djigan fu melné Union soviétique. diko ko fa jëlee Russie fa jëlee ba Russie. Mhm. muy ñëw donc il y a bel et bien au Sénégal donc il a que sax na. Mhm. ndax bu carburant bi bien. courant bi le man xam naa que mburu mi dana a parce que Sénégal yooyu yëpp bu war nañu dem ba kilo mburu fukk ak y ndax yagul dara fi jaay jamono mhm. Abdou Diouf. Mhm. na ba vous avez francs ba 100 francs sax baax mais qui sont nit bu ko kenn ku di nga c'est-à-dire bëgg olo opposé tax nga ay dërëm du fi dara ki yokk en plus. waaw ki yokk te wàññi dara kon kañ bu nit wàññee même du dem da nga naan baax na ci ñoo xam ne ñaari weer la ñu toog ñëw fekk kees yoo xam ne dañ ko délapidé. matagul sax at doguma la gisoon nañ fi kilo kilo kilo soble di jar 1300 francs. kilo sob mhm. mille la saako daaw heure bi daaw heure bi période tabaski saako bi doon jar cinquante mille francs. Mhm. te kenn waxul woon te nit ñi dañoo daw jënd ju ko. màggal Touba daaw lu fi nit dajul ci soble. ci soble ak pomme de terre te soble lu mu amul moom soble am na ñu ko santale faal sax. Hmm. Hmm, paale ni ngeen baal. <laughs> doy na waar. Hmm. kon daal alhamdulilah mburu mi nu na gën a wàññi. nañu gëm te xam ne leneen lu dul mburu sax danañ ko wàññee te président Diomaye loo gën a wàññi. mu gën a baax. d'accord goos kees ga nag xam nañ ne dara fekkee ko fi. am na solo alors euh, Alassane yow mhm. euh, gis nañ ni peut décision moom saa su jubee rek day am côté bu leen di arrangé côté boo xamante ne du leen arrangé ñu gis ni ci li ñu wàññi euh, bëri na ci li ñu wàññi ci ay produits yan mooy yoo xamante ne ni tey boo ko doon xayma boo ko ci leen arrangé. waaw wàññi bi moom kon lu ma ko waxee rek wàññi bi moom ñun yëpp ñoo ko bëgg te wàññi bi damay ñaan gaay rek nañ ko commencé ci kaw. parce que man dama gëm ne. kaw c'est-à-dire. si kaw si ci magasin yi. parce que tay man mi bëggona jënd bagage benen gars mu ne ma mu na la jaay sugar mais duma ma defal fatir ma ne ko bay ko parce que ñom sugar bi état bi luñ fixe gaay nang gaay bu ngi ko jaay léegi commerçant bu dof nga jënd bagage amul fatir loolu yaakaar na loolu. mais est ce que du ñak fatir bo mu la wax peut être bu ko keneen sa morom bu ko nango comme yow bañ nga ko sa morom bu ko nango koku bu démé bu koy jaay du wañi prix bi. da ko wàññi man moom loolu man man loolu du si ànd man damay war bi am facture parce que tey facture mooy lépp tey même contrôle bu ñu la jàppee mën nga war mun am na ñoo xam boo leen wanee facture duñ ko nangu mais d' man damay rafetlu trop si Diomaye ak Sonko li ñu def parce que nguur Macky Sall fii la ñu fekk dañuy xeer ñu ne wàññi nañ gars dugg si boutique yi au ñu commencé si kaw commencé nangu seen xaalis cent mille francs ngay fay nii ak nii gars yi nangu seen alal mais gis nañ ne affaire bi nguur Diomaye teg nañ ko si si ndànk na parce que gis nañ première fois waxoon nañu xam ne ne du mëna possible gars yi pousse ko. Mhm. fi mo lumay may ñaan rek contrôler lañu gëna contrôler grossiste yi magi magasin parce que magasin bu wañi détail bu bu jëndé facture lay jël machine am calculer tey tey munoo exemple mëno jëndé 100 franc bu ga jaay 100 franc loolu yaakaar naa du mëna possible. Mm. en tout cas dal contrôle bi dal ñun yëpp and nañ ci wañi bi mais nañ commencé kaw man loolu lay ñaan gars chaque fois magasin bu wañi magasin bu wañé détail day wàññi. d'accord parce que bo wàññiwul sa morom wàññi na gars yi foofu dem jënd fu gëna yomb té nit ku nekk client ngay ut. mais c'est sûr que tay mom say prix nga xamantene nguur gi waxna nañ ko wàññi yépp tay wàññi nga ko. non man mom ànd na ci mhm. parce que man mi bo xolé depuis kay commencé dama stop lumay jënd fu mu nekk ni sukar lay wor mais ñu ma am na ñu ma bëggon jënd ñu ne ma no bëgg nañ la mëng nañ la jaay mi du am facture mané lolu mënu ma si ànd. si jaay moom ba mu facture yaakaar naa du mëna possible gros magasin nañ wàññee ñom buñu ñu wàññee gëm naa ne incha parce que bitik bo koñ bo gis day nekk dem ba nekk famille ba nekk ay xarit. Mhm. tey ku la jëndal chaque jour yaakaar naa amoo intérêt di ko di ko jaalu seer ñun am nañ xool parce que gars yenn saa da ngay dégg ñun noo commerçant yi dañu war a wàññi ku wàññi dañuy sa bitik teg sa bitik yaakaar naa om ku nekk si moo moo war a am droit ñëw teg sa bitik yaakaar naa citoyen waru ñëw nga teg dañuy teg sa bitik wàññi bi moom ñun yëpp ànd nañ si parce que ñun yëpp loolu lañ bëgg parce que gis nañ gars yi la ñuy dund si jënd bi dangay gis dafa métti. Mhm. jamono bi dafa métti. Mhm. ko ay gis ne buñ ko wañé dal ñu yëpp dañ ci and te te business mom lu mu wàññee ko rek même kuy jaay da ngay gëna a bop mm-hmm. parce que mu nga jëndel yombu jaal yombu te day gaaw parce que bagage mom bu seeree mu na yee mais bu yombé day gaaw fat fat mm-hmm. nañ dañ commencé ci grossis yi magi magasin yi nañ wàññi détail mu na wàññi dama ñaan gaay bala ñu daan si bala ñu dem daanu si bitikee di len nangu seen alal bitikee boduge, duggé na la won fatiram exemple bo lakato nga jënd sugar xam nga yene sa non lañ dañuy jënd lakkatu yenn xalé sugar léegi boo ñëwee automatiquement borom bitik woon ko facture boo ko wonee boo calculer nga xam ne lii de su ko jaayee du génn mais wool borom magasin bi nga ne ko lan moo tax nga jaay li mm-hmm. que liggéey boo gis si kaw lay commencé mais boo commencé si suuf ñu gën a am doole boo leen dooree rek pour nga am li nga mm-hmm. na solo yan kàddu ngay euh, tëjee wala ban message ngay lancé naka noonu état bi nga xamante ne moo jël mesure bi pour ñu wàññi. waaw man lu may laaj sama mbokk commerçant rek mooy gars bu ñu jëndee bagage nga kalik nga génne si nga wàññi. parce que nit nit nit tamit da ngay soralé parce que xam nga encaissé xal yomb na mais génné xal dafa jafé nañ fexe ñu wañi di ñaan rek gaay luñu lu continuer ni ñu baña nek un mois ñu faté ko parce que avant avant dundon nañ ko fi dañuy wañi un mois deux mois après ñu jallasi lenen mais fi mom bëgg nañu fixé ko parce que mo mënuma comprendre sugar am problème sugar di manqué Sénégal bo dem exemple Mali wala Gambie sugar sugar dafa manqué te fofu la gëna yombé sugar bi Sénégal lay joggé lo ma la war affaire bi yëpp ci kaw la mm-hmm. ñi nekk si kaw borom doole yi si kaw nguur bi bu leen tegee pression ñu wàññi détails yi dañuy wàññi. di rafetlu trop émission bi di nuyu képp ko xamante yaa ngi seetaan Kewelo alsan maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Alsane lépp lu ngay sàkku yàlla dimbali la ci ba nguur bi euh, gis say message am na solo merci beaucoup jërëjëf jaajëf tey nuyu woo sa mbokku gambien yi waa da wax nga doo leen nuyu ah yaa di fàtte de <laughs> gis nga Dakar moo neex moo tax en tout cas maa ngi nuyu waa Gambie yëpp di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ewo Gambie di mm. wax rek Gambie ak Sénégal benn dëkk la mm. di nañ nekk si jàmm en tout cas di rafetlu képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Kewelo Mm. waa Gambie yëpp ñu ngi leen di ko quoi. merci beaucoup jërëjëf ba beneen yoon incha allah. di wax rek ma sama mbokk commerçant ndox bi nañ ko jël. Mm-hmm. parce que lii moom ah, waaw diwaan ah, ah. diwaan waaw sama xarit ma nga parce que lii moom lii mooy doolal émission mhm. émission moom dafa am mhm. dafa mhm. te bu doon ñeneen mën na wax ne émission bi daa garaaw bàyyi ma dem si télé yi mag yi mais ñu gis nañ yéen a ngi commencé waaw waa moo ko moom gis nañ yéen ngi commencé seen liggéey mu ngi baax nga jàpp mais ñoom feeñ en fait dañ ñu xam naa rek dafa rafet ñun ñeneen aussi ñu ñëw mm-hmm. incha allah. ok merci di nuyu bu baax a grand Clédor. ak mm-hmm. grand bi en tout cas kontaan naa trop bokk ak émission. merci